xam nga réew gis euh, ci de temps en temps a une crise c'est pas parce que a une crise rek àdduna bi tukki na wala régime bi régime na déedéet fii euh, Sénégal en 1968 de 88 en 1994, en 2000 2000 2012 bataille, crise du ci parce que le ak kër ñoo day am ay tension am crise mais dañ koy a une crise qui est gérer di féliciter président parce que euh, lu ëpp solo c'est moom ëpp doole ci parce que yor armée yor gendarmerie yor police mais su la waxee ni ah bu fekkente ni dafa am sa la xam nga ni ko comprendre bien que moom la jox violence légitime mais xam na ni nit ñi leen leen parce que ko tanewul do ko jité té yit nak euh, euh li euh ko waral ku ne xam nako ndax euh fièvre bi nek ci réew mi euh, mi ngi wessu légui at dafa yak économie Sénégal yu bari ñak lañ seen liggéey lool su ñëwé yokk ci chômage bi fi nekkoon mais da fay metti donc lool rek moo tax euh, mbir mi demee ni mu démé mu nak ma japp ni euh président Macky Sall

donc man limu wara def financement yoy mu def dafa wara a coupler ak lu wax recrutement massif xalé yi nañu leen jël ñu liggéey parce que euh, xalé bu am master euh, di taxawal wala am licence di taxawal war mu ñu def mu am qualification di di di taxawal dafa dafa bari li wax semence frictionnel donc liñ wara def japp na ni euh, malgré FMI ak banque mondiale le président waxtan ak ñom pour que réew mi ñu mëna jël xalé yi ndax nak war ñu jël puisque amuñu ay jàngalekat kat doy amuñu ay police yu doy amuñu ay gendarme yu doy amuñu même armée bi eh, doyul boo ci raxee doolu ay service d'hygiène médecins yi sage-femme infirmier ma ne secteur boo dem lañ fay même agent yi nekk ci commerce lañ fay jël doyul kon je pense que foofu la war a accentuer vraiment levier yi ba fexe bu ñu jël xale yu ba ay junni junni xale su ko defee ñooñu xale boo fi jël mu am benn salaire mais day dundal fukk ba ñaar fukki nit loolu laa jàpp ni moo koy moo koy moo koy moo koy saral li ci tegu nag mooy ñu euh, politique mu defaraat partem ñu organiser ko parce que nag partem koy organiser organiser ko waaye it coalition Macky 2012 mu jëlaat ko euh, ñi nga xamante ni bi dañ ko affaiblir ba mu pàcc yépp mu dajalewaat ko bu mu nekkaat benn entité waaye it Benno Bokk Yaakaar mu jox ko orientation yu bees jàpp naa ne ñaari yooyu bu ko couplé incha allah léegi ñu jënd ci ci ci crise bi di wax aussi ñi nga xam nag dañu taxaw pour yàq réew mi opposition kenn mënu ko tere ci réew mi ñun ñëpp opposition lañu nekkoon waaye nag opposition bu mënu tekki di yàq alalu jàmbur parce que réew mi bu fekkente ni dafa nar a continuer nii amul kenn kuy investir sa xaalis euh, ci réew mi mais du fekk ay ay ay bërb yoo xam ay sénégalais comme yow ñu fay liggéey mais nga nga toj ko ñu dem tok seen kër yokkaat chômage bi lool dañu ni lool mom mënul nekk te it nak réew mi du réewu caaxaan li wér te moy euh Sénégal mom dafa taxaw day continuer taxaw day continuer taxaw nak taxaw jonne na ku ne def sa na opposition bi opposé gouvernement bi na gouverner suñu contradiction mën nañ ko régler te duñu yàqal sénégalais yi.